maa ngi tudd Ahmadou Kane Ndiaye dëkk fii si Sam Kaolack Médina Baye. waaw ñu ngi gërëm bu baax initiative bi nga xam ne waa Kaolack Vert jël nañ waa Sénégal Vert jël nañ ko ànd seeg euh, Cheikh Baye Mbaye mi nga xam moom la al Kaolack yi ñun nag ñu ngi nekk benn club boo xam ne ñu ngi nekk fii si Sam Kaolack Médina Baye ëmb vraiment fi nga xamante ne mooy Sam Tabangoy ak Médina Baye ñu ngi tudd club des jeunes environnementalistes de Kaolack dox si wàllu environnement kon tax ñu tax ñu mën a lëkkaloo Sénégal Vert parce que sotti seeg des la vraiment initiative bi nga xam Baye Magnès euh, def na ko tey waaw niñ ko jàngatee ñun suñu jëm bopp dañoo jàppoon si journée set bi pour def set setal tombé moom tey mu def ko ñu bokk benn koñ bi ñu ne pourquoi pas mënuñu ko boole def parce que li ñu naan mbooloo mooy doole initiative bu rafet la parce que ku wax garab wax doomu aadama doomu aadama mënta mu mucc si garab ndax lan oxygène bi muy dégagé Euh, li nga xam ne mooy njëriñ bi ombrage bi nga xam ne mu ngi la koy jox fruit yi nga xam mu ngi la koy jox te dafa bokk tamit si li nga xam mooy protection de l'environnement donc garab dafa nekk loo xam ne lu am njëriñ la njëriñ la bu fekkee dañ ko a sàmm ñun suñu jëm bopp dañ see war a dox moo tax xam ko muy CEGEC ñu dox leneen lu dul environnement moo tax ñu dox si wàllu environnement lënkoo ak Baye Mbaye Baye Mbaye tamit lënkoo ak nekk loo xam ne c'est nous dans nous vraiment tudd Cheikh Baye al Kaolack yi dëkk fii ci Medina Baye waaye di yeewoo fi ñu wax saam euh, saam nag ak madina Baye benn la ndax madina Baye mooy saam saam mooy Medina Baye Baye moo ko créé woon tuddee ko Cham bi nga xam ne moo nekk euh, ca mu karam tey nag dañ fi ñëw euh, ngir journée bi nga xam ne son excellence moo ko initié muy président de la république du Sénégal monsieur Bachir Diomaye Faye Euh, ànd ceeg euh, premier ministre Ousmane Sonko rawatina ministre de l'environnement de la jeunesse ah ñëpp daal ngir lan ngir Sénégal jéem a soppi doxalin ci niñ ko waxee ci jub ci jubal ci jubbanti tey ci jubbanti boobu la ñu nekk mooy lan mooy Sénégal euh, dañuy dañoo dañoo am habitude ne. mbedd mi mbeddam buur la te mbedd mi comme ni ko soxna Safi waxee gisaguñ buur bi ci mbedd mi bu fekkee mbedd mi mbeddam buur la ñun ñu citoyen yi ñooy buur yi kon nag dañoo war a toppatoo suñu suñu mbedd yi toppatoo suñu environnement président initié jël décret en tant que président de la république ne samdi bu njëkk ci weer bi weer bu nekk dafa bëgg Sénégalais yëpp génn ñu bale dëkk bi setal ko waaye tamit buñ ci mënee suuxat ay garab ñi def ko loolu def na ko ci ñetti weer yi passé waaye tey nag ci la 7 septembre ñu koy defaat fii ci Kaolack rawatina fii ci Medina Baye la ñu tànn ci commune ci région de Kaolack pour defee ko fi tey lancement bi ci loolu ci loolu lañ nekk nii ci set setal bi waaye bu ñu waxee set setal wax neen environnement te bu ñu waxee environnement yaakaar naa ne garab rôle bi mu ci joué amul benn euh, mbindaafoon boo xam ne mi ngi koy joué détaillé naa ko sànq ci njëriñi garab gi ci lu bëree bari ci lu doomu aadama bi xam ak lum xamul waaye ci ay njëriñ yoo xam ne yenent bi moo ko leeral ndax yenent bi sallallahu alayhi moo wax ci benn xadis ne ma min muslimin yagrisu garsan fa yakulu minhu insanan aw dabbatan aw bahimatan illa kaana lahu sadaqa loolu mooy lan yonent bi sallallahu moo wax ne doomu aadama wala jullit mu jël benn garab jëmbat ko garab googu doomu aadama ñëw jëriñu ci mala ñëw jëriñu ci te ba mi wax mala yi mënoon naa wax doomu aadama kese waaye dafa tudd doomu aadama tudd mala muy jur gi waaye tudd tamit ñanaaw yi muy picc yi ba tudd ba tudd melentaan te ñëpp xam ne na ñooñu ñëpp dañuy jëriñu ci garab te ñooñu kenn ku ci jëriñu ci garab gi rek am nga tiyaaba waaw xoolal nga jëmbat benn garab sa doom sa morom doomu aadama ñëw am ci tiyaaba jox la ci tiyaaba jur gi ñëw jox la ci tiyaaba picc yi ñëw jox la ci tiyaaba melentaan yi ñëw jox la ci tiyaaba waaw mene te tiyaaba ci yàlla du lu tuuti yàlla bu waxee ne bu ngeen defee lii di ngeen am lii loolu nekk lu tuuti ndax yàlla buy compter. fi muy commencé moo bëri ñun nag journée bi tey euh, dañ ci jël initiative ngir ay doomu Sénégal yoo xam ne dañoo seen bakkan dafa des ci crise politique bi nga xam ne amoon na Sénégal muy 21 mars ba heure bi ba tey ki nga xam ne moo jiite réew mi ak ki nga xam ne mooy chef de gouvernement ñoom ñëpp rawatina chef de gouvernement muy suñu président parti di Ousmane Sonko nga xam ne moo nekkoon ci ay jafe-jafe ay sénégalais génn di xeex injustice ba ñooñu yàlla jël ci seen bakkan damay wax tamit ñooñu duñ ay militant kese ay waaye ay sénégalais lañu te ñun considération boobu lañu am ci ñoom en tant que ay doomu Sénégal ndax tey bu ñu nekkee ci jàmm ji tey walla di xalaat Sénégal bu naat ñoom. war nañ leen a xalaat war nañ leen a fàttaliku kon moo tax tey ñene dinañ jël journée bi spéciale dëjee leen ko maanaam journée bi ñoom ñoo ko moom garab yi ñu ciy jëmbat ñoom lañ koy jagleel pour lépp lu ci ñëw ci tiyaaba mu dem fekki leen loolu moo waral journée bi tey waaye nag comme mbiri citoyen la citoyenneté la dañ ci lëkkaloo ak lu mel ni Sénégal vert nga xam ne ñi ngi jógee ba dakaar ñëw fi te bi mooy deuxième fois ñëw ci wàll set setal bi ndax pneu yi tey mënoon naa nekk loo xam ne dafay nekk ci alam bi di ko yàq gis neen ñu bëri dañ koy jël di ko taal te taal boobu ñu koy taal gaz carbonique bi muy génnee dafay dem ci jaww ji waaye dafay dugg tamit ci doomu aadama yi ñu koy nokki mu leen indil ay feebar te jamono ji ñëpp xam ne ne changement climatique fi mu nekk nii lu réel la loo xam ne ñëpp teg nañ ci seen bët suñu mbay mi lan moo tax mënatuñoo am li ñu soxla ci mbay mi changement climatique moo ko def lan moo tax mënatuñoo am dund gu sell changement climatique moo ko def lan moo tax mënatuñoo mënatuñoo lu bëri même production yi ñi def lan moo tax pour ñi ñi mën koo jëriñoo changement climatique moo ko def te changement climatique boobu li ñu ci mën a dimbale mooy bu ñuy def lu mel nii ñu communiquer ci pour sensibiliser nit ñi ñi xam ne responsabilité la kenn ku nekk ci ñun mu jéem a toppatoo alam bi ngir ñu mën a ngir ñu mën cee dund. waaw euh, parce que ñun journée bi tey dañuy def collectif bi waaye ñu ngi commencé woon depuis le trois août bi nga xamee ne mooy journée nationale de l'arbre président de la république dem fu mel nii Touba Mbacké di dëkk suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba jëmbat fa benn garab waaye tànn benn garab aussi boo xam ne référence la muy garabu mango naam yàgg nañu jëmbat ay garab journée nationale yàgg naa am mais souvent dañ daam jëmbat ay garab yoo xam ne dafa commencé disparaître ci àll bi muy ay garab lu mel ni béer wala wén dégg nga wala dimbu wala xay donte ne nag garab yëpp baax na waaye garab yooyu liñ ñu leen gën a xamee mooy ay garabu matt la wala ay garabu ker wala ay garab yoo xam ne dafa baax ci environnement waaye nag ku ne xam ne ne garabu mango Cissé Cissé yi xam neen ko dina la jox ñam dina la jox li nga soxla te nee naa ne garab kon kontaagam ak doomu aadama bi bëri na bëri goo xam ne ku ko xamoon di nga di nga toppatoo garab ndax buñ mënee am taw bu normal bu équilibré waxuñ taw kese de garab yi dafay équilibré euh, jaww ji ba nga xam ne ndox mi bu yàlla ji di taw dafay taw taw bu normal boo xam ne du perturber euh, jaww ji ba nga xam ne yàlla ji dafa dañu am taw bu normal bu tawee ba pare ndox mi bu taayee garab yi tamit daf koy filtre produire ko daf ko oxygène yóbbu ko ci jaww ji pour ñu ñu mën cee dund waaye tamit en même temps yi garab bi reni garab yi ci lay ndox mi di jaar pour mën a dugg ci biir suuf si dem ci nappe phréatique bi nappe boobu noonu ci la ñuy jëlee forage yi ñuy naan ci la ñuy jëlee usine ndox yi ñuy defar ci la ñuy defar lu bëree bëri kon garab rôlam du lekk moo ci gën a tuuti te kon euh, wàll garab ñëpp dañ cee war a jël taxawaay moo tax président de la république ba mu ñëwee mu xam fi changement climatique toll mu créé benn ministère boo xam ne jox ko borom xam-xam ñu koy wax professeur Daouda Ngom dégg nga nga xam ne màcc euh, xam nga fa màcc ci lii moo waroon a ñëw fii sax tey waaye sànq démb la ma woo téléphone ne ma dafa am ngant loo xam ne président moo ko yónni nekkul sax Sénégal ebal na sax waa Eaux et Forêts ñu ñëw ñoom ñëpp ñu ngi ñoo war a ànd ñun ci liggéey bi def ko euh, kon nag tey liggéey boobu ñuy def tey dañ koy def ngir Sénégal waaye tamit dañoo tànn di ko def ci gox bi nga xam ne ci madina Baye waaye tamit ci koñ bi nga xam ne foofu la ñu yàlla sedd ñi dëkk fa ñu dëkk faag nag suñu ay mbokk suñu ay frères comme ni ko Ahmed waxee léegi nii euh, ñoom ñu nekk club de l'environnement de Kaolack dëkk ci koñ bi ñoom ñi amoon yéene pour def journée set setal manit it ma am yéene pour daf ko ñoom ñene dañuy ñëw ñu ànd ñun ñëpp dafa ndoor ko pour mu lépp nekk benn comme Sénégal suñu Sénégal la koñ bi suñu koñ la ñu ànd dafa ndoor ko ñoom ngeen gisoon yëkkati kàddu waa Sénégal vert tamit ñoom ngeen gisoon ñu jugee jugee ba Dakar ñoo ñu defal objet yii nii euh, transformé ko ba nga xam ne mën nañ koo jëfandikoo lii dañ ko yóbbu ci école bi yeneen yi ñu defar tamit dañ ko yóbbu ci rond point bi pour teg ko foofu pour wane ne pneu nekkatul pour taal mën nañ ko jël transformé ko ba jëriñoo ko comme ni nga xam ne noonu la benn borom xam-xam waxoon ne rien ne sa perd rien ne se crée waaye tout se transforme ndax lii tey buñ